diis na ndaxte juddu fekk sa papa di def dara teg defal la yoon bi nga jékki-jékki fii toll sa digg ndaw gisatoo ko te mu nekk xale metti na mais yàlla na ko yàlla may xolu muñ ndax bu dee xol bu baax rek moom am na ko donc yàlla na ko yàlla may xolu muñ ma ko koy jaale ndax papa Thione ni ko juree la ma juree suma papa Omar ni mu ma juree la ko juree te yàlla na yéex amoon bis bi kenn du ko fi jiitu xam naa ko donc ma koy jaale waajuram bu góor di ko jaale suñuy yaay jaaga di ko jaale ñoom Aline Seck toute famille Seck ñoom ñëpp maa leen koy jaale di wax eh, yàlla na sarax bi yàgg suñu loxo laay ku ko xam xamee ko euh, fayda ak gaynde gi mu doon mooy li ma ko li ma ko li ma ko jaale léegi ne ko yàlla na yéen bi oyof mm-hmm. donc yow yaay góor yàlla na yàlla def yéen bi oyof euh, yàlla xaare ko àjjana yéen bi metti na mm-hmm. diis na ndaxte juddu fekk sa papa di def dara teg defal la yoon bi nga jékki-jékki fii toll sa digg ndaw gisatoo ko te mu nekk xale metti na mais yàlla na ko yàlla may xolub muñ ndax bu dee xol bu baax rek moom am na ko donc yàlla na ko yàlla may xolu muñ ma ko koy jaale ndax papa Thione ni ko juree la ma juree suma papa Omar ni mu ma juree la ko juree te yàlla na yéex ma amoon bis bi kenn du ko fi jiitu xam naa ko donc ma ngi koy jaale waajuram bu góor di ko jaale suñu yaay jaaga di ko jaale ñoom Aline Seck toute la famille Seck ñoom ñëpp maa ngi leen koy jaale di wax eh, yàlla sarax bi yàgg suñu loxo laay wax ci barki Serigne Saliou Mbacke Serigne Touba na diis na ndaxte juddu fekk sa papa di def dara teg defal la yoon bi nga jékki-jékki fii toll sa digg ndaw gisatoo ko te mu nekk xale metti na mais yàlla na ko yàlla may xolu muñ ndax bu dee xol bu baax rek moom am ko donc yàlla ko yàlla may xolu muñ ma ko koy jaale ndax papa Thione ni mu ko juree la ma juree suma papa Omar ni ma juree la ko juree te yàlla na yéex amoon bis bi kenn du ko fi jiitu xam naa ko donc ma koy jaale waajuram bu góor di ko jaale suñuy yaay jaaga di ko jaale ñoom Aline Seck toute famille Seck ñoom ñëpp maa leen koy jaale di wax euh, yàlla sarax bi yàgg suñu ku ko xam xamee ko euh, fayda ak gaynde gi mu doon mooy li ma ko li ma ko li ma ko jaale léegi ne ko yàlla na yéen bi oyof mm. donc yow yaay góor yàlla na yàlla def yéen bi oyof euh, yàlla xaare ko àjjana yéen bi metti na mm. diis na ndaxte juddu fekk sa papa di def dara teg defal la yoon bi nga jékki-jékki fii toll sa digg ndaw gisatoo ko te mu nekk xale metti na mais yàlla na ko yàlla may xolub muñ ndax bu dee xol bu baax rek moom am na ko donc yàlla na ko yàlla may xolu muñ ma ko koy jaale ndax papa Thione ni mu la ma juree suma papa Omar ni mu ma juree la ko juree te yàlla na yéex su ma amoon bis bi kenn du ko jiitu xam naa ko donc ma koy jaale waajuram bu góor di ko jaale suñu yaay jaaga di ko jaale ñoom Aline Seck toute la famille Seck ñoom ñëpp maa ngi leen koy jaale di wax euh, yàlla sarax bi yàgg suñu loxo laay wax ci